simplement ni si mën bëgg a njëkk a laaj moo di soo jàppoon ne amul recul démocratique surtout bu ñu gisee bu Guy Marius dem ñu dem yaakaar te jox ko liberté provisoire moom ak Babacar Diop ñoo bokkoon lu def université yëngal ñu bàyyi ko mais moom bàyyi nañ ñeneen sax ba tey jii téye ko ci biir kaso bi est-ce que recul démocratique amul. recul démocratique am na dara nga leen ko wax ci sama biir parti te recul démocratique yaa ngi koy ci. ndax yoon des na nekk indépendant ndax démocratie yoonu ko gën yor démocratie bu tax nit bu fekkee ne jot na ba yaakaar ne système politique benn système démocratique bu boobaa dañuy gis ne exécutif maanaam nguur ci boppam ak pouvoir législatif maanaam assemblée nationale parlement ak justice ku nekk ci sa yaa ngi yor wàll boo xam ne yaa ngi koy doxal te kenn ci du ci ba bokk ci du ci Sénégal nag am na loo xam ne ñu koy dund depuis deux mille treize yaakaar naa deux mille quatorze tey tey boo toogee rek tey di di di di di di di boo ko waree am loo ci wax da ngay jàpp ne assemblée nationale exécutif moo ko def maanaam loi bu war a génn Macky Sall mooy joxe ndigal ñu war a dem waaye bu ñu war a soppi Macky Sall mooy joxe ndigal ñu war ko soppi te nag doo toog gis loi boo xam ne day jógee ci député yi ci seen bopp ndax xalaatal lu baax askan bi nga xam tax ñu taxaw fa ñoom ñoo tax ñu teew fa élection li ñu doon jiital ci seen waxtaan yeeg askan wi ci seen waxtaan yeeg électeurs yi mooy bu ba fal ndaw Macky Sall ndax loolu du assemblée nationale loolu du député na ngeen fal xam ne daf leen di wóor ne bu ñu toogee yéen dañ fay toogal loolu du benn justice itam dafa war a indépendant dafa war a doxal loo xam ne waa ñu ko tëral jógee ci assemblée nationale waaye justice boo xam ne day jot ndigal jëf ci kaw ndigal bu jógee ci nguur loolu dootul justice te bari na fi ndax nag liberté provisoire liberté provisoire la liberté provisoire joxe ko bu fekkee ne li nga xam ne yaa ngi ci jubbu war ko génne muy atte ne liberté provisoire bi du ci yàq dara. ndax ñun wàllu sànni bu génnee dina daw dina génn réew mi déedéet ñu ngi rek di ko bëgg a toqatal di di ko bëgg a sonal. loolu moo indi ñoo ñu bàyyi ko ca ca kaso ba. te nag li ma wax itam am na ci. kumba am day kumba amul may loolu du justice loolu foo ko gisee rek injustice la te am na ci. ñu ko waxee Babacar Diop am na ñu taxaw ñu ko taxawal ne ko bii du am. teewalu Sadio mel na ni moom ci ñun xëy na moom moo a yàlla ci ñun ko bàyyi mu ne. mais loolu république démocratique na ko yow fekkee na nga le président Macky nekk premier ministre pour yow ci lay nga caractériser ko est-ce que mosoon nga njort ci moom ne dina dem ba mën a doxalee nii ci bu ma ko njortoon. urgence. mooy génn primature. kon bu ñu ci di ko dimbale. des ci di ko jéem a xelal ci naka la ñu war a mën a doxalee réew taxawal kuréel boo xam ne cinq tànk la ko doon maanaam euh, club de réflexion di ci liggéey ak euh, sama ay yeneen morom ak ay xale yu ay xam-xam yu bëri dama mën a ba nit juróom-ñaari téeméer di bind di teg ci loxo waaye man daal ci li ma gis jàpp naa ne ay deux mille quinze mel ni bàyyi na li jàppoon yépp indi beneen façon yi doxal doxalin. loolu lan moo ko waral. parce que bu nga président la république. lu tax ñu président la république. xalaatal lan la mën a jëf mu doon njëriñu réew mi. ndax lii nga xam ne teg nañ la ko sas nañ la ko dénk nañ la ko waaye boo demee ba jàpp ne mbir mi neex na ba dëkk ma dem xaaral ma seet lan mooy a tax ne duñ fi yàgg jëriñu la te lépp loo xam ne mën na tax waxuma sax nga bañ fi toog wala mën a indi dëkk maanaam ndax dina am am

ñi ko ci boole kon man daan ci juróomi at waaye mu njëkk a yokk naa ba ah juróomi at yi ñu ngi ndax mën naa ci élection ñu demati baramati ne juróom-ñaari ci naka ci indi parrainage parrainage boo xam ne tey ñu wax ne lii ngeen indi yeesal ko soppi constitution kenn mënu ko jëf kenn mënu ko contrôler mënu ko may loo ci dégg dégg nekk ci loo ci dégg mu jóge ci conseil constitutionnel dégg nekk ci nee nañu disons contrôler la de électeur ndax moom mooy parrainage loolu bu signé booy contrôler parrainage damay contrôler signature il faut c'est ça bind nañ ko ci seen décision du dëgg du dëgg bind dëgg daal di indi njaxas bu métti ci ci fichier électoral loolu yëpp génne nañ ko ci rapport boo xam ne mu ngi tudd coalition Idy 2019 ñu ko génne ba noppi ku ne ci ñun am na loolu ci loo ci loo ci loo ci liggéey ci la soog a génne bi nga xam naa ko ci biir coalition. kon nag bu ñu dana jàpp élection dañ ko truqué. tuuti te tiitaas boobu am moo jur dialogue national ndax war a indi beneen wax pour ñu fàtte tricage bi pour ñu fàtte tricage bi pour ñu fàtte it mbirum pétrole bi mbirum pétrole bi ci kaw li ci BBC jotoon wax yaatal scandale bi yaatal wax bi yóbbu ko ca fépp ca ca ca àdduna national bi dañu woon liñ ci jàpp ñun ci biir CRD contre de l'Alliance démocratique ak ci parti bi may jiite mooy diversion la ndax bëgg fàtte fàtte loo xam ne amoon na ci élection te élection bi tegul ci am na it ci pétrole te loolu di scandale bu rëy a rëy boo xam ne. dañ ci dellu soit ak seen plainte. incha allah tey jii euh, monsieur le premier ministre bu ñuy war ko sénégalais yi lan lay doon doo ko dëgg ci bu ma yëgoon duma dem ndax ci dëgg-dëgg maanaam duma nangu ñu fay ma président wala madame ministre le ministre li tax wax loolu mooy am ci jàngat jàngat bu rëy ndax yaakaaroon naa ci loolu laa laa jàng dëgg ne dangay fal politicien ci kaw loo xam ne wax na ma ne nii lay doxalee nga gëm ko yaakaar ko ci di ko ci dimbale di ci ànd ak moom fekk moom

xam ne ci mën na politique mu jàng politique ci kaw man jéem indi beneen gis-gis ci biir politique indiwaat li war a doon politique politique di lan politique di jël sa jot jël sa alal loxo bopp mu alal bu ñëw ci yow ko ci maa jiital sama njëriñu réew jiital sama njëriñu askan seet ci mën a def bu fekkee ne mënoo politique nga jéem des ca action citoyenne waaye bul toog di seetaan ndax réew mi boo ko seetaanee ba mu yàqu ba mu daanu ñëpp ñàkk te dina ci bokk. léegi askan wi bëri nañu jooy ñu ne dañu mën opposition daf leen lâché si boppam ñoo bizarre man daal li ma jàpp mooy. ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ndax yàgg na ñu ak Sénégalais yi ñu leen ah ñuy doxalee duñ ci génn ñu leen na réew na ñu ñu ngi jàpp ak bi ñëw day gën a neex loolu du am lépp nga wëkk ko ci dëgg waaye day gis naa ne liggéey boobu yëpp du liggéeyu benn fan. Mhm. Euh, li ko indi nag mooy xëy na Sénégal yi sonn seen xel nekk ci leneen waaye bu ñu bàyyee seen xel ci leneen dañu daal di gën sonn rek loolu ragal naa ko ci ñoom. ci ñu wax tamit euh, ne gisuñu bu policier yu bëree bëri bokk ci mouvement ñoo lank bi lu tax noonu. wala da ngeen bëgg a bàyyi moom mooy citoyen ñoom ñu dem. déedéet loolu am na. waaw di ngeen joxe manifestation mais je veux dire que boo leen joxe woon communiqué moom mu demande